ci boppam fu mu nekk nee nañ dëkkab dóor a fayee koy tas mbajum kanam la borom a koy fajal boppam te daanaka nag lii nguur gi teg leen nee nañ seen mbajum kanam la ñoom la ñu mbaj ñoo koy fajal seen bopp majjaaluñu ñaanuñu ñu campagne de sensibilisation la ñu woote ngir reeteet nguurug Sénégal ci lii nga xam ne mu ngi leen koy teg dañu koy reeteet ndax nee nañ abus de pouvoir la jaay doole gu ma sëkk nag boo wootee ngir doxum ñattu ñeneen du fi am nga wax ñu jàpp tëj loolu si boppam la ñu bëgg mu dàkk nee nañ campagne de sensibilisation la ñu woote Aliou Ndaw moom seen mbokkum géejawaay la defe naa yaa ngi koy wax sànq euh, Aliou Ndaw moom nee na faw nag code de contrôle ci boppam ñu audité CREI bi nga xam ne daanaka gas nañ suul mais nag gas ka suul ka def salaatul fatiha ak ñaañ cay topp gas suul loolu dafay yomb nee na faw nag cour de contrôle. ñu audité cour des comptes may ma ma njàmba su tuuti ndaxte euh, l'enquête ba dem ca procureur de la république ministère de la santé moom giraawaale ya fa am moom dafa jéggi dayoo oui daam bu ñu jox marché bi reconnaître na ne moom mbirum santé xamuñ ci dara ah, waaw ne moom mbirum voyage la xam ñu ne déet na waay et puis et puis yi yu euh, médecins yi doon sol ak ñi xam ñoo doon nekk sur le terrain sur facturation presque un milliard am na ci. ca yàlla. dinaa ci dikkaat bàyyil ba altine ma tëjal leen lépp. buub sàccee bis faw mu am. Le Quotidien yéene kaay ne accident bi wax fa dëgg ne xelal choc la choc la séir amul fil 24 morts la wax bu fekkee moom euh, tribune dane 25 moom Le Quotidien dane 24 morts la 50 ñu nga xam ne ay blessé la ñu daanaka dikk na ci euh, itinéraire euh, tragique boobu nga xam ne daanaka moom la bis bi jël l'enquête yéene kaay ne carnage la un nouveau carnage la woon moo xewaat ca Ngën Saar wala Ngën Saar lu ñu koy banda ci Ngën Saar ñi ne Ngën Saar donc Ngën Saar la foofee sa diwaanu euh, Louga moom it bilan bi la téye rek ñaar fukk ak ñeent ñoo sa faatu juróom fukk jële ci ay gaañu gaañu kenn ci rescapé yi daan na na nga xam ne moo sookeel accident bi Antoine Félix Diome daal di dikk le cumul des morts et des blessés dépasse de loin le nombre fixé sur la carte grise du véhicule na leer kon nag bu fekkoon respecté woon nañu rek lii nekk ci carte grise bi oto bi daanaka du yëpp la mu yëpp lii du ci dolli. Antoine moo war a bàyyi hmm? di mais mënul sax ñetti fan mu dem foo xam ne plus de quinze personnes dee nañ. ah waaw bu demul kat ñu nekk barki démb la jógee ci taatu géej gi. day tàgge rek kon mu demaat encore ci tali kon day tàgge rek. abi atuwaan mënul dëkk tamit di tàgge rek. abi abi de dese rek moom ci boppam bu ko neexee léegi nii tàggee wàññeeku. kon de yàlla mu ñëw Thiès. abi de dese rek. bu ñu ñëwee kon kan Stéphane naan. nga <laughs> ne président Macky Sall mooy Stéphane. fexeel ba bu ñu seet. da nga am ay xale yu jigéen. après naa la ko expliqué Gana la woon Gana. koy présenté généraux yi rang bi nii ba mu yegg ci général Stéphane Kanak. waaw. xoolal ni mu koy ni mu général de Nangam. le général Stéphane Kanak. tur bi moo xaw a doy waar daal. waaw léeg-léeg ñag yi seen tur yi ak olof bi. day xaw a. Euh. Macky Sall gëstu ne nii gars yi bu ñu seet si de. non kooku bu ñëwoon Sénégal ñu war koo tagg noo koy taggee. non non non non. après ma bind après ma bindal loolu. kii daal moom war na moom comme que moom li mu wax gars yi na to mais moom sa deux jours mu dem mu dem mu dem tàggee. toño moom laa gën yërëm ci ministère Sud Quotidien daal di ci l'accident boobee diggante Saint-Louis Louga retour des vieux démons daanaka nag la woon rek moo amaat ndax la woon bu fekkee moo fi nekk ba léegi kon mënul def lu dul li nga xam ne andiwaat li fi li fi nekkoon 24 morts la wax ñoo xam ne ñoo ñàkk seen bakken 22 yi nag ci saas si la ñu faatu bii soog bi amee teel si la ñu faatu am na si ñeent ñu nga xam ne ay xale lañu ñeent ñoo xam ne ay xale lañu ci euh, euh, euh, l'accident bi laata may ñëw ci la mandat damay des ci accident ba léegi de. accident mortel tragique à Nguène Sarr te diwaanu Louga hécatombe 24 décès et 54 blessés yéen kaay bi daal di dikk ani lu sookeel accident yi le peuple dafay ñëw ci Mamadou Lamine Massaly mi nga doon laajte sànq nee nañ ñu wax côté dee l' accident yi yëpp dee ba yi yëpp du lenn lu dul conseil de casserole yi tëggum bool yi eh, nee tëggum bool bii saabu waa ji tëggee bool nit ñi di dee comme ay wañ. Mamadou Lamine Masal mais moom moo kii dëgg bool ñoo ko kontaan. nee na. mais yow boobu tëggum bool yi. waaw loolu man wax na ne xale yi dem yi dañoo amatul espoir Sénégal ndax Macky lu mu demul troisième mandat. ah voilà waaw ku nekk ak sa explication bàyyi ko explication. non wasali. kon lii Macky deful troisième maanaam moo leen metti ñu bëgg a génne réew mi. non wasali. wala El Hadj daa bëgg a wax mais dafa teel a wax. El Hadj daa bëgg a wax mais dafa teel a wax ci waay. kenn kenn tolluwaay kenn xalaat aywa. nee na waa ji saa bu dëggee casserole nit ñi dee. comme ay wañ ma waxuma nag de. wallaay waxuma jarul da ngay jottali xam naa ñu may reeteet waaye man sama yoon nekk si. mais yéen saa bu jógee ndox waaye bu ñu dindee barrière yi mu taw. le point le point. le point la football club. scandale financier. jëm ci benn transfert bu cent millions. yéen waa Guédiawaye. Ibou Dieng mi dañu ko placé sous mandat de dépôt. coowal cent millions la de après mu mënul foofu na nga wax ñu dégg parce que man comprendre ma coowal. Ah. Hmm? non hmm. ah, ah. même bu dee man maay président d'honneur u équipe bi. waaw mais li ma ci xam nag dafa dafa bëriwul te comme que wàllum xaalis la yooyu. te ñun ñëpp ay dëkkandoo lañ. ki ñu plainte ak ki plaitanteeg président d'honneur ba ñëpp ñëpp ñëpp. waaw léegi daal bu ko defee ñu maandu ca noonu daal ba gën cee xam ay xibaar yi gën a wóor waaw kay. monsieur le maire yaa ma waxal waxoo ma gi dafa xaw a doy waar. monsieur lan mandat moom wootewul maanu le mandat nee na hmm. ñii nga xam ne ñoo yootu nguur gi di ay milliardaire nga xam ne nguur moo leen defar ñoom daal moom nguur état rek la ñu téye jafandu ci état tëkkoo bàyyi li ñu naan jafandu ci mbay ñoom dañoo jafandu ci état doon ay milliardaire ay sauveur public lañu wala ay fossoyeur des deniers publics lim googee Richard yooyee nga xam ne ils sont peinards hmm. ndaamal kajoor kele kele Idrissa Seck mi ngi ci ah kii nga xam ne moo di Amadou Bay Limaani jëwriñ yi ci milliardaires yi la bokk e ñaar la andi ba des na benn bi di am na benn boo ma joxul de kii nga xam ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo sa la bokk xalifa sàll mii taxaw Sénégal sa la bokk waaye kii nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr maam Jare xalitu euh, Mamadou Fofana sa la bokk pros bu Ousmane Sonko moom pros sa la bokk te ñii nga xam ne ay milliardaires lañu. ci richaar yi la bokk. mais gis nga ah. ñooy décider. Ah. comme li Idrissa Seck waxoon aux États-Unis xoolal gis nga ñii ñu ay ñii dañoo condamné ñii seen loxo setul ak ñii xaw ma dañoo am xaalis. Hmm. yow daal sa waay Abdou Diouf li mu waxoon jàkka jaay ku mën a noo doon daal léegi bàyyi leen ñu ñëw ñoom ñëpp bu ñëwee sénégalais yi ñoom ñooy décider le jour J le vingt cinq. très bien. jarul koñe jarul xas jarul dara bàyyi leen ñu ñëw. jarul xëccoo de ah. waaw borom mbaxana bi xanaa ku moom ole segon ko ba sa Niger eh, eh, militaire yi ñoo bëgg a fukkati nguur ga buñ ko fukkatiwul ba noppi fukkati nañ ko basum buñ ko fukkatiwul ba noppi waa jaa ngi nii jonkan wax nañu ba sonn ñu bàyyi ko ñu ne mukk du sa daal yéen kaay bi di ah, en fait Odia tey foofu la génne jamono ji nga xam ne ñoo ngi woote sommet Afrique gars yi di servir ay caviar di toog di waxtaan waaja moom ña nga nekk jonkanal bu jóg ah. bazu la jeex na. <laughs> moom journaux yi mu jël dafa ndaw. Ah, déedéet ah, ah bi temps la nag. Ah, temps la waaw temps la temps la. <laughs> yeewu noonu de. dañoo yow yow yeew yi bi bàyyiwul nan. dañu gën a yeew. dañoo tënk dañu heure bi ngay démarrer heure bi ngay pare. ah loolu sa bopp ah waaye walaay gëm nañ ko moo tax ñu taxaw fii xanaa.